ñu wax lu jëm ci gox yeex gox goxaan yi ONG 3D la mu ca bëgg rek mooy gën koo ñoŋal ba tax nañu amal ab lël ci ndakaaru niki démb la fi amoon lañ ci wax rek moom taxawal lu jëm ci ab cadre juridique boo xam ne bés bu ñu ko taxawalee lépp lu jëm ci liggéeyu ñu ne ci gox yeex gox goxaan yi ñu gën leen cee jàppale ci noonu dañuy teewlu mu Ndiaye Cissé moom moo jiitee ONG 3D ay kàddoom Alpha Ousmane ak Mohamed Dieng ñoo ko taataan. boo xoolee dañu gis tey ne maire yu bari. maanaam collectivités locales yi ñu ngi jooy di jooy ci néew li néew xaalis bi leen nguur gi di jo jox dafa néew alors ñun ñu jàpp ne même bu néewee dafa di yoon aussi collectivités locales yi ba ñu toog rek di xaar nguur gi war nañ ñoom aussi xool yeneen i pexe yu leen mën a may ñu mobiliser alal yu leen tax ñu mën a financer lii développement local mais war nañ aussi ñun def lu ñuy wax contribution citoyenne fexe ba aussi Euh, alalu askan bi ñu fexe mu gën a bari ci lan ci sensibiliser waa ñit ñi ñu mën a di fay seen impôt ak seen taxe loolu bokk na ci li nga xam ne tax nañu organiser atelier bi pour gëstu ak collectivités locales yi yeneen i pexe yeneen i yoon yu mën a yokk alalu collectivités locales yi ba ñu mën a dem ci développement local